accompagner euh, la survenue de l'alternance mais bi bi bi Abdoulaye Wade installé au pouvoir vous n'avez pas euh, occupé de de, poste jamais da ngeen delluwaat ci seen posture mu mel ni dafa am une cassure à partir de 2012 une société civile euh, des organisations de la société civile yu accompagner un pouvoir après pouvoir bi incorporé leen est-ce que du crise bi société civile bi di jànkonteel est-ce que du foofu la jóge loolu mën na nekk moi je donne exemple man bi bi 2012 jotee proposé nañu poste ba bañ parce que da ngay am problème on m'a proposé une responsabilité que j'ai refusée quel quel quel poste ma dañ ma dañ ma proposé nekk président premier premier président wu OFNAC on me l'a proposé j'ai refusé j'ai sous Ablaye j'ai eu des propositions ah, donc en on vous a proposé le poste de premier président de l'OFNAC avant ñuy nommer Nafi Ngom Keïta. Mm, effectivement ok et sous Ablaye Wade. Ablaye Wade j'ai eu des propositions même de euh... ministère des choses mais j'ai j'ai pas accepté. Euh, j'ai eu des appels du pied sous Macky par rapport à des ministères j'ai j'ai pas accepté. c'est la question de l'indépendance il faut être indépendant. am na y a des yoo xam ne boo duggee ci gouvernement tu dois être loyal au gouvernement un problème d'ailleurs même boo gisee affaire 2000 euh, dafa am benn quiproquo bu rëy ak Ablaye Wade quand on a fait euh, bi ñu defee euh, débat boobu présidence de la République mu am ko parce que moom defe naa dañ ko faral quelque temps après on a pris une posture contre une décision du gouvernement mais il a sauté au plafond il a je ne comprends pas ndeysaan ndem euh, si yàlla Chérif El Walid Sey son conseiller en communication mu ne mais mais dites à maître Bamba Diomaye je ne comprends pas on a fait une chose extraordinaire tey mu xëy mu may critiquer ma ne El Walid dafa am juumte ànduñu wax moom il a parlé de constitution ñun ñu def benn programme boo xam ne dañu permettre pour ñëpp comprendre lan moo nekk ci constitution bi ni ñu defee audition ak moom la ñu proposé woon audition ak ñoom in Tanor Dieng ak euh, l'opposition ñoom am Dansokho ak d'autres groupes. mais il y avait quand même un penchant euh, pour pour Wade xam nga nag góor gi dafa dafa dafa aay c'est-à-dire. Euh, toutes les préoccupations yi ngeen am euh, par rapport au processus électoraux euh, par rapport à la question des libertés Abdoulaye Wade a été le candidat qui les a mieux intégrés et donc qui a capté un peu euh, votre adhésion. très indépendant. Le Forum civil a toujours été indépendant. En tout cas, pendant tout le temps où j'ai été président du Forum civil, c'est une indépendance totale. amuloon benn concession benn concession. Alors, euh...